mbokk yi ziar nañ leen ñu leen jox seen wàccaay di leen fàttali rek yóbbalu gàmm gi tey mu nekk jour moins 19 mu nekkoon kon ñetteelu vidéo bu ñuy def tey nag ñu jël ay bayit yoo xam ne ñu ngi ko jukkee ci xasida bii di mu muxaddimatul am daax ñu tënkee ko sëñ bi tënkee ko ci bayit yi di wa innaka la ala xuluqin azimi nga xam ne démb sax bi ñuy def vidéo bi daal nañ si tudd waxaale suñu borom nan la taggee yonent bi kon ñu dikk ak ci bëy di daal leen koy leeralal ci suñu xam-xam bu gàtt lépp loo leen fi dégg nag mu jub ngeen xam ne yàlla la lépp loo xam ne dëgg na si ñun ñu suñu matadi la ñu alwe bu gàtt moo ko waral waaw bayit yi leen indil kon mi ngi toll si ñeenti bayit eh, ñeenti bayit yoo xam ne ñu ngi ko ci bee foofu kon bi ci njëkk moo di لأنت إمام مرسل قد جاء أنهم تلاخوك في الإسراء والكل قد سلا لبست ثياب المجد والفضل والهلا وفيك من الأخلاق ما أحجز الكل loolu mooy ñaari bayit yi nga si Sëriñ Tuuba ginnaaw bi nga xamee ni tàgg na yonent bi lu jiitu loolu ci biir xasida bi mu ñëwee ba foofu anta imaamu rusli mu doon wax ju rëy mu ne yonent bi yow yaay imaamu rusli rusli mooy yonent nga ba pare yor mission ndax dafa am dafa am ñu ñuy wax nabi rek ñooñu la ñuy wax nabi ñoo xam ne yàlla moo leen def yonent waaye joxu leen mission bu ñuy dox nga xam ne nag mën na nekk nabi ba pare nekk mursal moom la ñuy wax koo xam ne dafa nekk yonent ba pare yor mission nag la sëñ Tuubaa wax ne yonent bi mooy seen imaam maanaam mooy seen njiit mu ne ko nag talaaxoo ko fil israa wal kulli xasalla ñoom ñëpp nag dikkal nañ la ginnaaw comme suura bi ne ci euh, alquran sur isra nga xamee ne yonent bi mi ngi doon dem di jëli ji julli dem masjidul aqsa jóge fa yéeg suñu borom dem jëli julli ñëw mu ne ko yonent yëpp daan nañ lay dikkal nag ñoom ñëpp nag daan nañu julli maanaam sa ginnaaw ndaxte ñoom ñëpp dañoo ñëw yonent bi jiite leen daal dem jëli mission bi kon yonent bi moo nekk seen imam ndaxte moo leen jiite ba pare daal di dem jëli mission boobu nga xam ne moom la waroon doxi muy julli ba mu fa jógee mu daan ne ko labista siyaabal majji maanaam yonent bi mu ne ko sol nga yore maanaam boo déggee yore maanaam waxi la waaye mën na nekk garaat bu ñu taggal yonent bi loolu métaphore la ko tubaab di wax maanaam yonent bi yor na garaat boo xam ne wala sol na maanaam manteau boo xam ne manteau lal la manteau noblesse la maanaam màgg ak ngëneel ak maanaam kawe mu nekk yoo xam ne yonent bi moo ko sol jiite ko mu nekk yoo xam ne moom rek moo ko làmmoo kon bu ko yonent képp koo xam ne daat nga ciy am kon ci yonent bi nga ko jëlee ndax kuy màgg di tedd di am gënër rek ci yonent bi nga ko jëlee mu daal di si mu ne ko nag wa fiika minal axlaaxi maa ahjazal kulla mu ne ko nag yow yonent bi yor nga ay jikko yu rafet yoo xam ne ñoom yonent yooyu Sëñ Tuubaa waxoon kenn yor ko ci wala sax ñu jàpp ne mbindeef yëpp kenn amu ko ci ndax yonent bi bu dee ay jikko yu rafet moom dañuy wax makarim axlaa moo ko fi ëppale dàqale ko loolu sax mooy mooy maanaam nuñ koy waxee mooy yaxu xasida bi ndaxte xasida ba nga xam ne ñi ngi wax ne sëñ bi mi ngi ko tënkee wa innaka la ala xuluqin nga xam ne suñu borom mooy wax ne yonent bi yor nga ay qualité morale maanaam yor nga ay jikko yu rafet yoo xam ne yaa ko làmboo kon yonent bi yor na ay jikko yu rafet yoo xam ne yonent yi yoruñu ko sàkkamtu malaak doomu aadama simple yi ji mel ni ñu mu daal di siy tegaat ne ko laqiita min al ahdaahi ma dallana mahan ala annaka laysul lazi xisbahum fala mu daal di koy tegaat ne ko liman jaa yabxi min ka naylan maal huda ata ya basirun te dafaxul faxra wal maxla mu ne ko daal nañuy dikkal am maanaam mbir yi nga xam ne yow yonent bi daan nga koy jàqoonteel muy ay maanaam loo xam ne am na sa digganteeg noonu mu ñuy bir ni naka yow mi di yonent bi yaay gaynde maanaam yaay jàmbaar ba nga xam ne yaa wëlbati noon yi noon yi nag boo ko déggee mooy kufrun ak képp koo xam ne dafa jug pour dal ci kaw lislaam mu daal di koy waxaat ne ko képp koo xam ne dikkal na la min nag muy sàkku li nga xam ne moo di njub képp koo xam ne daal na lay dikkal di sàkku lu baax ak lépp ak njub dana ko am ndaxte yow mi nga xam ne yaay basiiru ndaxte yonent bi mooy basiir du nazir basiir mooy kuy kuy mbég kuy bégle nazir mooy kuy xupp tadafaxul faxra wal mahla yonent bi kooko dana am la muy sàkku te it yonent bi dana ko fànqal li nga xam ne mooy alfaxra maanaam pauvreté ak bépp ñàkk-ñàkk lépp loo xam ki ba bi dana ko am incha allah mu daal di koy ne ko kon liman man jahlun lakum zata jaruin azabun sadidun yurisul faxra wal qatla mu daal di safaanu kooku mooy ka nga xam daal na lay dikkal nekk ci réer daal di ñëw nag bëgg a song ki nga xam ne moo di yonente bi osé ngir song yonente bi xeex moom wala jàmmarloog moom kam na nga xamee ne yéefar daan nañ ko defee ca jamonoom Sëñ Tuubaa daan ne kooku nag lam cay jëlee moo di alfaxra maanaam pauvreté la ciy jëlee dina ca jëlee pauvreté ñàkk ba pare daal dafay jëlee nga xam ne moo di alxatla da dee maanaam dana jëlee dana ñàkk la mu amoon yëpp tayit dana mujjee faatu yonent bi ku jug di xeex ak moom da nga mujjee faatu ndaxte